ah yow mii di seetaan ëttu xale yi aboneel nga taal cloche notification yi ba lu ñëw rek nga jot si waa fii si yow xaar nañ la ba sonn foo nekkoon nag maa ngi jégalu sur retard bi eh sa temps ñu dañuy maar si ñoon eh, noppi leen noppi leen bu leen jur solo si télé lañ ne noppi leen eh waaye eh, eh, waa tàmbale nag maa ngi jégalu sur retard bi ah, ah. tàmbale nañ commencé waaw waaw sax ñun du tax bi du nu metti sax tax toog ngeen noonu waaw tax du rëy tax tapata waaw parce que ñun feebar bi président dafa xool ñu toog suñu kër waaw ñu ñu toog suñu kër génn ñu ay mag lañ waaw ma dégg nag ay fecckat ak ay simbakat ak ay ñiy xale yooyu te daanu ñëpp coono leen xaalis même théâtre kat yi waaw ñun màgget yi nag mu ni ñu toog suñu kër ñu toog suñu kër tabaski bi baax nii di jub si euh, kii wu ñu jox ñu dara ñun sonn nañ de gestu ñu yor njéen mi yore ngeen jox ko fecckat yeeg yi ñun ñoo ngi nii toog amuñu waaw affaire bi da leen wax baay du bëre man Abdou Guèye laa xëy mais paa du pëno laa bëggoon taal sax paa bi moom taal morso xonq rek parce que kanam dëree avertissement ko maam Demba la xaar yegg